Bamako. Hmm. supprimer affaire hmm. gis hmm. quelques minutes là, on minutes là, minutes mais nous ñi aussi. marché les train de Bamako en 24 heures comme heures. mais mu Diboli toutes ces toutes ces toutes ces villes là. dafa joxoon dund ville yooyu. dafay bokk ci désengorger. luy tax nit ñi mburokuloo dem ci tali bi surtout ça dafay créer ay économie permettre dëkk yu ndaw yooyu muy def taxaw mhm. mu ñu dund mhm. dama lay jox benn exemple boo xam ne bu non xoolal baaw ka balaa nga sax ci marché bi ngay wax waxuma la marché bi xam nga ñun par boo demee gée nga new suñ suuf si melul noonu ci ay am ay mango yu baax ay papaay yooyu mais on arrivé à manger tout cela xamul loolu da doon jógee Mali mhm. di ñëw mango Mali da doon ñëw ay yooyu donc pour vous dire que ne dund bi ne dafa mhm. mais train ba mu dee ba tey gis nga comme nous l'avons lay wax situation bi dafa. dafa am benn sénégalaise. Mhm. bu jóge woon Dakar dans dem Abidjan ci ay mbokkam. parce que dans dem ba Bamako. Mhm. après mu jël bus yi pour dem Abidjan. train bi dem ba mu yegg am dëkk bu tudd Mayna. fële ca Mali après di après Diboli ay cas yi ci après Mayna la ainsi de suite bu yeggee Mayena, train bi parle. ku jigéen gi toog fa ak ay mbokkam heure lekk jot mu daal di ne xaaral mu dem xool marché gay mu jënd ci mu jënd ndugg bu jën affaire yooyu ñoo togg togg bu jën. Mhm. Malien ya nekkan ci wet ba ñoo ñam ci lekk bi ñu ne ko femme bi nu mu demee finalement ñu ne ko jaayenu ka doon dem Bamako euh, Abidjan fekk fa ay mbokkam. Mhm. finalement may naa la mujjee toog c'était un grand restaurant. sénégalais bu nekkoon may naa sénégalais bu daan ñëw ba yegg si may naa dangay ngay waat ñu ne restaurant sénégalais baa ngi na leen. femme boobu noonu la mujjee toogee. lan moo tax mu mun a découvrir monde boobu mu nekk citoyen foofu. Mhm. train moo tax train moo ko may opportunité boobu. Mhm. léegi nag euh, euh, dama ci profité waale joxale la pour le moment xam nga accident bi ñu ci thème accident bi ñu nekk ni mhm. euh, dernier bilan bi nga xam ne moom la ñu joxe. ci accident bi nga xam ne moo am tey ce matin ci yoonu. yoonu Louga bi. Parce qu'au-delà de 24 euh, morts, on a ou 23, 24 décès au total. 24 décès. 24 décès. Euh, 22, nous avons Croix-Rouge informations. information l'information. Quel à l'admission au euh, service euh, de réanimation, Ben Saint-Louis, Ben Bi, nous avons l'hôpital Amad Sakir Mbaye. Au total, nous avons eu mat 76 victimes. 76 nits, nous avons 54 nous avons l'hôpital. 30 blessés euh, ñu ngi hospitalisés di hospitalisé hôpital régional donc 4 graves 15 euh, blessés légers euh, admis au niveau du centre de santé sur les 24 corps 13 identifiés. donc ce qui veut dire 11 ba qui c'est extrêmement grave. encore une fois.

tey jii yal nañ ci yàlla muusal boo amee jëye bu mel nii. Mhm. ñoom dañuy daal di génne liste passagers yi ñoo xam ne diw ak diw ak diw moo duggoon ci oto bi. Mhm. bu fekkee ne feebar bu mel ni épidémie bu mel ni ay Covid 19 wala yooyu ñu am na kenn ku mu dal ci oto bi. Mhm. dinañu xam ñan ak ñan ñoo nekk ci oto bi parce que ñooñu euh, seen système boobu dañ ci boole loo xam dañuy jëlaale si numéro téléphone ñaata bagage la ak fan ngay wàcc. boole ci ban oto nga jël. kan mo nekkoon chauffeur bi. Mhm. loolu daf ñuy permettre ñu mëna facilement identifier nit ñi mais gis nga système bobu biko jeune yoyu yooyu indi Ziguinchor. Mhm. ñu lancer projet bi ay chauffeur ñoo xey xeex leen ne nañ ko fi jëlé parce que ñu fekk ay citoyens sénégalais yu sonn ñu leen tégal 100 francs or ñom lu ñu fàttee wax parce que ñom sen sag yi au-delà de bagages yi ak place yi nga xamné ñom dañ koy jaay. Mhm. place yi xam nga dañ koy jaay. da ngay ñu la boo bëggee tok place devant place chauffeur bi dafa am lo ci teg au-delà de lolu chaque amul benn prix homologué bi ñu teg pour valise yi ak saag yi sa saag bu ndaw gars yi mu ngi leen neexee ñu ne 2000 ngay fay wala 1500 ngay fay. ba simple bagage wala sac mën nañu la tere interdit le nga dugg ci oto. Mm-hmm. or voilà ay jeunes yoo xam ne indi idée innovante bi nga xam ne mënoon permettre identification mm-hmm. parce que bu fekkee ne ñooñu seen euh, seen système bi la. foog naa ni tey du ñu fi nekk nan 13 13 morts voilà onze personnes yi ñaan nañu dañuy am liste kenn ku ne kuñ ci woo sa téléphone téléphone bi sonné presque kenn ku ne sa téléphone rek sa poche la nekkoon. Mhm. wala sa sang la nekkoon. Mhm. bu ñu fekk sa poche ñu xam ne diw nii la tudd. Mhm. ñu mën a xam ñan la ñuy contacter say say mbokk. malheureusement c'est chaque jour dañuy wax ay mesures chaque jour dañuy dañuy def des grandes déclarations bu jëyee yu mel ni amee mais gis nañu ni souvent c'est pas suivi d'effet et c'est ça qui fait mal pour un gouvernement parce que un gouvernement c'est d'abord anticiper. garage bi nga xam ne oto bi ci garage la déparé wala boog ci koñ la départ ay police ak gendarmerie la rombu ci yoon bi. Mhm. bu fekkee ne rombul police rombul gendarmerie. Mhm. donc c'est encore plus grave. Mhm. gendarmerie ak policiers yi lu tax garde arrêté wuñu leen ñu dàkkal li nga xam ne infraction la parce que depuis ñu jëloon conseil euh, décision boobu defe naa ni cette décision là elle est devenue boo ko boo violé infraction la. lu tax mënuñu dàkkal infraction boobu ñu bàyyi la mën ñëw y a toute une chaîne de responsabilité qu'il faut revoir mais surtout euh, Sénégal il faut ñu jàngaat encore sanctionner ñi nga xam ne dañuy violer euh, délibérément euh, ay loi wala ay ay ay ay ay interdit mm-hmm. interdit yoo xam ne surtout bu boo ko boo ko violer euh, conséquences yi n'ont doon yow mais askan wi ngay lor. alors mais Babacar justement nan nga ma mën a décision yi nga xamante plus de vingt décisions jëloon nañ ko yaa même pas un an ñuy gissat même chose yi ñoy ñoy ñooy répercuté wu encore même fait yi ñoo ñëwaat di reproduire ben changement lañuy wax. ak yan décision comme si que dañuy jël ay décisions yo xamante parfois. dañ koy rangé waat ci tiroir comme niñ ñu ko doon jooytoo parce que bañ koy jël ñu bari bari génnoon nañ ne juste pour ranger ko ci tiroir yi mo taxoon. parce que biñu jëlé décision yooyu.

dañu déplacer li nga xamné moy le quotidien des sénégalais les questions de sécurité réelles. nous mhm. jël ko nous ko ci politique politicienne pour neex euh, pour lu neex wa nous ñak jàmm. Mhm. di wër nit ñi di leen ñu concentrer focaliser force yépp ci lolu or pendant ce temps la nature a horreur du vide bu fekkee ne fii amoon ngeen ay nit yu taxaw pour surveiller yone bi nit ñooñu nekkatuñ fa ñu ngi mhm. surveiller ñan ñoy préparé ay cocktail molotov ak ñan ñoy marche mhm. bu boobaa ñi nga xam ñu ngi ci yone bi dañuy continuer def li ñuy def rek té lool day melni sax instabilité lay gëna jur ci réewum oh, Sénégal ba tay ñu né accident bi ci liko provoquer bokku na ci taw bi da doon taw excès de vitesse excès de vitesse je pense que yag nañ ko reprocher chauffeur Sénégal bien vrai que ay jambar lañ mais tamit sur les mesures on avait parlé de plombage non bien sûr je nañ fi façon mesure bu nekk man émission bu mujjee def c'était par par rapport accident bi la je me rappelle le lendemain ñu may may def émission ak ben, ben membre du Benno Bokk mais je leur disais c'est les c'est des énièmes mesures que nous allons prendre sans les appliquer Moi, man il faut que dama dans le comportement ñun les politiques laxisme bi nga xam mhm. on ferme les yeux surtout loolu dafa war a jeex moo tax man